Oke, ministre Abdul Karim Fofana moo ini. Wah. Oke. ok ñoo ni nii ci bi at angle Sandiniéry mo juste suri bi nga xamantene mo genn génn ci Sandaga bi ama gauche am Lamine ge bi ci kanam wala marché eh. bi ngeen di seet ni gis ngeen fi yeb dañ kaa baare Sandiniéry bi mo continuer côté bi yes